nii lañ ko defee woon ak Modou Lo sëñ Fallou Luc Nicolaï teewoon conférence de presse tey jii nag le grand champion l'enfant chéri de Pikine le fils de Falaye Baldé rakk ci Jules Baldé moom la ñuy Ama Ama nag booba ak léegi lu mel nii defaguñu ko ak moom def nañu ñaari yoon point de presse ak ki nga xam ne moo di Modou Lo mais tey Ama Baldé la ñu fas yéene jàkkaar loolu ak moom laaj ak tontu mu nekk événement bu mag yaakaar naa ni événement gënu ko rëy ndax bu ñu ne Ama Baldé ak Modou Lo ñoom ñooy bëre un combat royal Modou boot li nga xam ne moom moo di Parcelles Assainies ak li ko wër ama nekk l'espoir de tout Pikine am ginnaaw lool macha allah combat boobu combat gënu ko populaire mais nag ak léegi ñu bëgg ñoom ñaar ñu jàkkaarloo jàpp nañ ko ñaari yoon antuwul fitna am ci ñu bëgg fitna jooju nekk ci suñu ginnaaw ba plan de communication bi Luc Nicolaï bëgg a déroulé ak ñaari mbër ñu mën ko def ak suñu teyu bakkan def ko ci jàmm te loolu sax mooy li war a am te loolu mooy li am parce que Ama doomu réew mi la Ama c'est un sportif de très haut niveau parce que tey nekk sportif de haut niveau daje ak ay champion yu mag tër leen moo tax tey Modou Lo yor tiitu roi des arènes nangu ko seq ak moom di ko bëre bu fi deful woon dara wala fi dara Modou Lo du ko may donc c'est un grand champion nekk doomu mbër taxul nga doon mbër mais boo nekkee doomu mbër leneen la ca des yaa koy liggéeyal sa bopp fulla ak fayda borom moo koy liggéeyal boppam sa papa du dugg ca géew du bëre du léwtoo yaay dugg ci géew bi yaay wane fulla fayda ak jom te loolu la wane ba egsi fi mu egsi fii tey kon tey li nga xam ne ci lay daan doole di gañ peer ku ko bëgg doo ko ko yàqal ku ko bëgg danga ko ci jàppale loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg balaa ñuy dugg nag ci conférence de presse bi dama bëggoon rek ñaan tuuti avec la permission de Luc Nicolaï ñu jël benn minute de silence jagleel ko suñu naataango. qui était le secrétaire général de l'ANPS muy Omar Diarra. yàlla dogal mu génn àdduna tey jii ci 11h lañ ko denc ci sëgi jàmmalaay ñu koy jalal yàlla xare ko àjjana. ndax ñoo daan ànd ci liggéey bi. moo xam làmb la wala football. mu nekkoon un jeune tireur très dynamique. Luc Nicolaï sama la woon xaritam jàppale ko ci wàllu liggéey bi nekkoon suñu xarit ñun ñëpp yàlla suñu borom def li gën tey ñu suul ko ca yoof Seydina Limaamu uuf ko bi ga xamee ni mi ngi toll ci sukuraat dafa woo soxnaam ni ko madam mu ne naam mu ne ko Seydina Limaamu nax bi yu moo jël si. nañ jóg une minute de silence ñu minute de silence. ku nekk ci li nga gëm nga ñaan Omar Diarra yal na ko yàlla xaaree àjjana. allahumma salli ala sayyidina Muhammad saatihi lima ughliqa wal khaatimi lima sabaqa wal haadi ila siraatika al-mustaqim wa ala aalihi haqqa qadrihi haqqa qadrihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim. inna Allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala an-nabi yaa ayyuhallaziina aamanuu sallu alayhi wa sallimu tasliiman subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun wa salaamun wa salaamun المرسلين والحمد لله رب العالمين jaar yàlla te moom jaar yàlla te yàlla yërëm xare ko àjjana fi nekk yàlla may ñu wér may ñu gudd fan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ku ci yàlla boole kii xeex ñu koy fay ak kii xeex gratuitement leneen mën ko caa fekk waruñu bokk donc kon ñun ñi nga xam ni ñooy dund làmb di dundal làmb ak ñun ñi nga xam ne ñun ñooy supporter nañu xool ni ñuy jëfee ak nañuy doxale waaye li may wax ne mooy responsabilité bi nag mi ngi ci mbëy mbëy ñu man ñoom laay jox responsabilité bi parce que seeni teraanga la te seen teraanga fa mu nekk war leen nangu kenn ku leen ko yàq kon yéen mbër yi yéen a war a apaiser waxtaan ak seeni i waxtaan ak seen i andi waxtaan ak seen entourage ñu mën a indi jàmm ci làmb ji ndax du sport bi rek moom moo fitna fépp am na fitna. boo xoolee ci politique bi fitna gaa ngi ci. boo xoolee tamit ci football bi fitna gaa ci. boo xoolee ci làmb ji fitna jaa ngi ci. fitna jooju nag ñun ñoo ko mën a génnee suñu biir apaiser ko te xam ne ñun ñoo bokk tey jii kenn ku ci ne ci ñun boo xooloon sa arbre biologie ki nga dendal bokk nga ak moom. kon ñu bokk nag war ñu yàqu. kon ñu ngi ñaan fan su Modou yi ñu ngi ñaan tamit fan su Ama Baldé yi nañu dal bu ñu jógee fii. am naa yaakaar ne tey jii Serigne Fallou Luc Nicolaï dina jox bis bi nga xam ne ci la ñuy def face to face face to face ba buñ ko jàppee nañu respecté lépp li ci war su boobaa ñu ma a jàkkaarloo ñoom ñoom ñaar waxante ba mars ñu daal di daje bëri ko ci bismillah jeexal ko ci amdoulah le maire gagne ndam li du génn Sénégal ndax ñoom ñaar ñëpp ay doole Sénégal ñu daal di bàyyi Serigne Fallou Luc Nicolaï <coughs> nuyoo ci turu. Euh,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 di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal tawféex di jox sa wàccuwaay lay jaay kontaan naa ci yow jërëjëf. jërëjëf sëñ Fallou Luc Nicolaï léegi dañuy bàyyi Ama mu def moo introductif am nuyoo ak yéen gis nañ ko bi mu dugg tamit mu yor ay drapeaux muy drapeau Sénégal ñëw jox ko taskatu xibaar yi. xaw ma sarax la ñuy <laughs> nekk lu nga xamante ni nii comme ni ma ko interprété man parce que man sama xel a rëy ma jéem a dox ci xelu gars yi naan leen dafa dafa dafa bëgg Sénégal bëgg réewam faral équipe nationale moo tax mu joxe drapeau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 ku ko ñaanal yàlla na ko suñu borom xaare àjjana di ñaanal Père Mbaye Gueye yàlla si ko suñu borom xaare àjjana di ñaanal kenn koo xam ne Pikine la nekkoon muy monument Pikine Samba Sarr ma ko ñaanal yàlla na ko borom xaare àjjana di nuyu waa Pikine yëpp di sant sëñ di sant Karim Mbacke bu baax moom may sant sëñ Abdou Karim Mbacke di ko santaat bu baax a baax di sant jëwaru sëriñ yëpp di sant sëñ Atea sëñ Tako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 tatagal di la jox sa wàccuwaay waaw question bi nag am na solo garantie moom mënut a passé dem CNG régulariser jox mbër yi seen reliquat jox leen seen avance bu mën sëkk deselu ma leen dara Ama Baldé ngi nii toog ak euh, staffam Modou Lo ngi may amul kenn ko am na yoral naa ko ci dara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 di nuyu Luc Nicolaï di ko jaajëfal ci bopp te bi mu jox pour ñu ak moom ak ñaari bëri di jaajëfal Ama ak ñi mu àndal euh, di jaajëfal Père Mbaye Diagne ak presse bi yëpp ñu leen di jaajëfal bu baax a baax euh, comme télé yi mu nekkee en ci 2STV en même temps mu ngi en direct ci ITV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ah euh, di nuyu presse bi bu baax mooy xam reporter journaliste ci caméraman yëpp. Euh, di wax na rek ñu gën a rafetal liggéey bi surtout ñun presse bi liggéey bi naa rafet suma gars yi bu ma ko waxee nag génnoon ci suma bopp dañu gën a organiser waat bu baax a baax xool li ñuy toog xool li ñuy taxawee bu baax a baax parce que itam euh, euh, ku ñuy jëñ lenn rek fekk la lay sottoo yéen yaakaar naa ne bu ñu la ko boo ko doonul itam bu baax a baax dañu gën a rafetalaat liggéey bu baax a baax xool li ñu koy bu baax amoon naa deux questions Ama ak Luc Nicolaï Euh, damay njëkkee ci lépp sama copain léegi maa ngi lay nuyu bu baax euh, tey li ma lay laaj mooy euh, dañuy jëm suñu plateau président CNC Bira Sène mu ne te te ñu ngi doon ñëpp a ngi doon ñaan pour ñu yóbbu combat bi Léopold Senghor pour mu bañ a xaj fa nga xamante ni mooy arène nationale mais jënd nañu ko suñu plateau dimanche mu ne lépp lamb lamb mu ngi amee fa feneen.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 di la gërëm di la sant di la wax ne question sama premier combat moom bëri sama premier combat laa ne parcelle la ma tax jug man maa ko waxoon te dama séntu woon ma moom lu mu yàgg-yàgg li ñu bëri assumé loolu yëpp ne pare naa wax dëgg yàlla lépp lu mu laaj rek maa ngi si bu neexee yàlla pour affronter Modou allah bu soobee yàlla. lépp pare naa xale bu ndaw laa tamit <laughs> pare naa.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 waaye am na rafet naa si jot bu baax a baax dinaa doon waa des ñu <laughs> ngi nangu ziar bu wér. deux questions en fait première bi ci euh, xam nga mooy euh, da nga partenariat ak xam nga donc li ñu bëggoon xam xam euh, nga ban structure la pourquoi nga choisir ko. Hmm. et la dernière fois da nga wax ne que Daplo liggéey aussi ak seen at est-ce que c'est possible liggéey ak deux structures yoo xamante ni ay mooy première question deuxième bi mooy sa conférence presse bi passé da nga am loo wax si perpétuité sa naataangoo Gaston génn am lu mu wax euh, ñu bëgg xam pourquoi est-ce que lan moo xew sa diggante Gaston et pourquoi mu génn ndax la wax parce que man dégluwuma li mu wax kon du ma ci mun tontu danga may wax li mu wax. yow lu mu wax.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 am na ma toogaat gisuma lu ma xam ma dolliwaat yeneen trois mois ñëw xam na en tout cas samay xarit yoo xam ne ku si mel ni Babacar Babs maa ngi koy gërëm bu baax baax a baax ku mel ni Baye maa ngi koy sant di bu baax a baax a baax ak sama mafia vingtième bi ñoom Momo ñoom Mooro ñoom Momadou ñoom ñëpp maa leen gërëm xam na dama fa demoon uti lu doyal sama xel te yaakaar naa ne am naa ko lu ma uti woon yàlla suturaal na ma si bu baax baax a baax a a baax leneen lu si des nag yàlla yàlla yàlla yàlla muy sama grand Modou Lo yàlla na ko yàlla kàttan lu lépp lu mu bëgg si làmb bi rek muy doole muy kattan wér gi yaram xam na waa parcelle ñëpp en tout cas dama buy ñëw mu doon ni koo xam ni ni ko xam ne da xam ne kii champion ñëw no borom kattan ñëw na borom doole ñëw na mm-hmm. xam nga. ki nga moom ah. waaw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 di gërëm bab si ñaar ñooñu laa nekkoon seen loxo xam na ku su mel ni muppool xam na maa ngi gërëm ñooñu ñëpp wax dëgg yàlla taxawu nañ ma lu ma war a taxawoo xam na dooleel nañ ma xam na tax xalaatuma dara ndax ñoom wax dëgg yàlla franchement lu si war yëpp def nañ ko di ñaan yàlla yàlla na leen yàlla kàttanal di ñaan Yaasin Mbaye yàlla ko suñu borom defal jàmm mhm. mais mais mais tamit fii jàppoon nañ ko 2STV euh, Sen TV mujjul am ñu jàppaat ko arène nationale mujjul am te lu ci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 police da lay jox faute de route yoo xam ne ñun nii la ñuy jaar ñun respecté nañ suñu Modou Lo nag fu ni xale yi toog mooy xale di xale yu ndaw ndax sept ans yi. gis nga xam nga moom la fa demee yi voilà xam nga xale yi te te li ñu voilà lu koy wax nii dama euh, kiiw pay per bi dama si sawar a tontu bu baax a baax. ay temps xale yi xale yi trois cent lay yor mënuñu jënd billet mënuñu seetaan bi la tey boo leen xañee seetaan.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 yàlla nii rek la ko mën a jagleel sama mbir xëy na yàlla suñu borom ni la ko jagleel ama gos ama waaye yàlla xam na xole maa ñaan yàlla képp ko xam ne Baldé képp koo xam ne yaa ngi sawuré roi des arènes Ama Baldé maa ñaan yàlla na ñëw tekk ak tey ah ñu dem si yaatir si jàmm ak salaam ñëw préparé le treize yàlla bu am ndam yàlla bu moom ndam yàlla nañu yàlla may ndam naan móodloo ku mun sa moroom duma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 wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla bu baax a baax ndax naa ni muur la bu baax a baax du ñeer bu ñeer sa comprendre combat bu diisee si man bu diisee si man yëpp yàlla xam ne man xam naa treize mars xam naa bu baax a baax lu may fekk ak lu xam naa bu baax a baax te maa ngi si xam na Jules Baldé koo gis mu nekk sa ginnaaw sax ñun duñu gaaka quoi Jules Baldé xam ne lépp maa ngi koy ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm amiin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 sama kéem laay kàttan rek eh, li ma mën pour sénégalais yi bég dinaa ko def je pense que bés bi rek Ama Baldé Modou moom kase innovation loolu rek rek doy na innovation waaw di tooñaale ma yi di leen wax damay ragal rek di toppandoo moom damay bàyyi ñuy def ma leen di toppandoo incha allah jërëjëf am ayca waaw boo bëree mbapat xam na ko bu baax a baax Modou Lo xam na bu baax a baax man moom mbapat nañ bëre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 xale bu ndaw nga. mooy daan ah, ànd ko ci ko yàgg. waaw xale bu ndaw nga di nga dama la entraîné man ba muy bëree muuloo xaw ma entraînement ma daanee ba suba si laa xam entraînement man muuloo moo ma def champion wax dëgg yàlla billahi dama koy bu baax a baax jiw bi. bu ma defee sama kër papa yàlla ak mm-hmm. man jour laa woon fubar laa mënoon. Mm-hmm. waaye Modou ma daane. laa takk sama tànk takk sama daal takk sama lépp. wax dëgg yàlla dama koy sant bu baax a baax di ko gërëm lépp lu ma am si làmb yàlla moom la. su ma déggee roi des arènes tamit yàlla moom la. jërëjëf. du loo mais mais grand grand loo gëm la loo gëmul gëmul la. wax dëgg yàlla loo gëmul gëmul la. gëm damay doon roi des arènes barke ah? gëm la. nit dañ lay fekk si yoon yoon dañ lay fekk si yoon rek yóbbaale la. loo gëmul gëm roi des arènes dama ko gëmul gëmul. sama ma doon ko fayam. Eh, <laughs> que moom ñoo ko mag si at mais moo ñu mag si lii ñuy def ay baax tout le loolu pour baax amul am na ko ci ñoom ndax wax léegi euh, gars yi ci wax waaw merci beaucoup waaw suuf sa boo déggee ma di ko wax parce que arène nationale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 yónnee na message man dama gëm ne comme ma ko waxee Ama ak Modou Lo boobu. Eh? non man gëm naa loolu Ama ngi ñuy toog Ama da nga koy weddi. ah <laughs> non bu dee sama supporter rek. voilà ñu supporter jarul sécurité. te sécurité dina am dina am lu mu néew dina am mënuñu consigner sécurité yëpp Sénégal ndax élection am na. sport aussi ci askan bi la bokk ci réew mi la bokk dañ ko war a def. ndax ñii tey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 donc sport la ñun ñëpp nañ bokk bàyyi félicité suñu politiciens yëpp ñaanal képp koo xam ne ndam bi yow la jik yàlla la ko may di leen gërëm di leen sant euh, Babacar waaw question bi moon xoolee ba tey ci presse yaa ngi kon boog doon nga suivre samay événement moo tax ma ne ba may wax toujours wax saa wax Beuz Ibrahima. ma ne ko Babacar c' est un élément exceptionnel. da nga béy sa waar ci la. Babacar borom nga borom nga borom fayda li nga am da ko mérité de. barke la yàlla rek moo ma tiim da nga li nga yo parce que nit noonu la quoi.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 combat bii ci am ni ma leen ko waxee woon conférence de presse bale jàmm moo ci am jàmm moo ci am incha allah dinañ ko bëre ci yoon face face dina am fii dina neen ak feneen open press am affaire neex bes ba ñu tëj barrière suuf ba nag dinaa la ci tontu man maa la ciy tontu man du la ci tontu. ma ne bàyyil bëree. déedéet Malick dama seetlu affaire dañu tëgg demb Diop ay ak stade de l'amitié. problème avant. unité ci biir géew bi waaye ñëwatuñu ku ñaar affaire bi ci biir suuf bi ñëwaat boo yéegee boo ñibbee la bu tooy waaw donc tey gis naa di rey ñoo ñu nekkoon fa woon bi sax doon woo sapeur pompier yi président bira ko nuyu au passage naan nañu arrosé euh, suuf bi ndax suuf bi dafa bare hmm. donc euh, li nga wax dëgg la Bakar mais bon ci mbër yi yaakaar naa ne Ama quand même loolu waru koo jaaxal. Modou Lo moom xam na bu baax ne contrat moo ñu lié. le pa mais da dafa ñeme dem te mënu le 22 le 22 ñu am signature demoon sax tey le 22 day ñëw par force day ñëw ci signature bi ci dara parce que contrat moo ñu lié contrat moo ñu lié contrat boobu da koy respecté par force loolu mënul am passé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 ma ne. Alaaji ci sécurité non ngi si bu baax a baax képp kuy sama famille rek képp koo bëgg na ambal nekk sama famille yaa ngi si bis bi yaa ngi si waa bi ñoo ma war a bëgg sax wax dëgg yàlla barke sëñ Fall. Mhm. jërëjëf. waaye tamit suñu ànd ba tey rek euh, en direct euh, Fana Hôtel de presse euh, Luc Nicolaï Enco ak Ama Baldé Fadel ñoo Dakar Buzz jox ko boobu kooku mooy chéri mère Binta Faye ma xam ne demoon génn tey ba na gën ñu ngi ciy ma benn laaj boo xam ne nag pour nit ñi ko laal li li dayo bis bi toll muy feer Sénégal yëpp ci xaar est-ce que jotul yow en personne nga jóg sol daal doxantu ba bureau de la seen toog ak moom xamal ko ne ni feet la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 dëkk Modou yomb naa bëri Modou moo jafe loolu tontu ci loolu. amatul ay Fadal waay kii mooy chéri mel bi dafay borom nga paru. aja bismillah. waaw dégg nga maanaam Mawla ñu <laughs> bilaay ñëw mu ko ñëw mu <laughs> loolu mooy bàyyi question Sénégal ñëw mu <laughs> ah, ah man moo ko wax moo ko jëm mu wax ko. ne ñëw mu ko ñëw mu man bi rek ma nangu angule ñëw mu waaw bis ba la treize. waaw yàlla bëri na sutura. Mhm. waaw c'est vrai Bira moom du ñu ci kàddu. Euh, mooy kilifa làmb ji toujours dañuy gisante di waxtaan. li nga wax nag dëgg la. ndax mooy firnde bi ma la jox sànq. Gris Bordeaux Balla Gaye bi ba koy tëgg. bi Sénégal ne du combat. yéen dégg ngeen ko ci presse bi. mais non non ah lii du combat ma leen bii mooy suqali laa am. ñëpp génn. à une fustigé ma ma noppi tontu. man leen dama leen di répondre par les actes. jour douzième position Balla Gaye ak Gris Bordeaux 17h30 le stade bi fees. colonel bi moo ma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 merci beaucoup Djily Kébé Wassare TV ñu dégloo tudd salaamaaleykum maa leen di ñëpp ku ci nekk ci tur ak ci sant di leen jaajëfal bu baax ndax yaakaar naa wax bi ñu dégg yëpp la mooy làmb bi xajul arène nationale li man ma am benn question rek boo xamante ne dama koy mooy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

mu daan wax ku mën ku ëpp doole ku dàq bëre yaa nga ko yàlla mën bii nga indi ku mën rek da ngaa jàpp ne yaa mën Modou parce que bu ñuy gis ngay wax dañu mel ni dañ koy xaw a kuy gis Modou Lo ñu duggoon ci deux bi moom ngay bëreel wala waaw sa question bi dañ ciy sa question bi dañ ciy sawar a tontu bu baax a baax bisa comprendre xam nga boo gisee maanaam ku dàq bëri ku dàq xeex yàlla na yàlla may ndam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 waaw li nga wax noonu question bu ma mën a bu ma sawar a tontu la xam nga doomu aadama moom lu yàlla jagleel sa laay da nga xam ne yàlla suñu borom lii ma jagleel xam na man ma taxaw ne la bëriwu ma moom àdduna du neex naqari ma bëree moom wax dëgg yàlla xëy na yàlla sax dafa ma jagleel lu bëree dafa ma jagleel lu bëri am na booy yu ndaw ndaw ñëw si làmb samay morom yooyu ñëw si làmb ñooñu mun naa toog xaar leen comprendre loolu rek di ñaanal yàlla pikir yàlla na fi jàmm na di ñaanal AS Pikine di ko ñaanal yàlla na ko suñu xam na di ñaanal moo taala suñu xam na moom mi doon président AS Pikine maa ngi ko yàlla ko yen bi di lu mu moo xam si Pikine yàlla ko suñu borom defal di ñaanal sama mag Thierno Ndomba Thierno Ndomba maa ngi a baax baax baax kooku mun naa wax sama lépp la maa ngi koy yàlla na ko suñu borom defal nekk Pikine yëpp maa ngi ñaanal yàlla na leen suñu borom defal jàmm. Hmm. kàddu yi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 bii nag yan temps <laughs> la. grand maa ngi jël sama rendez-vous bu baax a baax pour fekk ko. Mm-hmm. incha allah. ah waaw ah waaw da nga paase ko. ah waaw dama yaakaar ne suñu bàtt daañu ko war a xaram xaw ma. waaw loolu laa yaakaar ah waaw. macha allah xam nga bala ngaa bëri da ngay am certificat d'aptitude physique surtout da ngay am visite da ngay am contre visite. visite contre visite. ah ku wérul. Eh. lu tax ah deux minutes ku nekk arrière. waaw man kër xam kër naa ba daanu sam bopp. waaw xam nga kenn daanu xam nga kër kër ba daanu sam bopp. waaw kon mbër yëpp war leen samp visite instant mais mais mais Ama Ama am na benn a posé mooy que ne. Euh, gis nañu ne corona bi. laal na lu bëree bëri bëri bëri wàllu économie. est-ce que yow yëg nga ko wala déet. waaw ñun ay jaam lañ dañuy sant yàlla bu baax a baax yàlla mënoon nañ si boole si lim hmm. ñu gaañu xam dañuy sant yàlla ba ñu toogee. ñooñu lekk ñooñu naan ñooñu préparé suñu roi des arènes. non non man kii laa côté économie laa wax xaalis bi est ce que yëg nga ko daal maanaam est ce que frappé na la côté xaalis bi ñu dugg wala génn na ak ni nga demee Europe préparé sa combat di kat yooyu yëpp. laajal que corona bii. laajal sama nijaay li gars yi joxe est que jot nga ko sama nijaay chaque jour moo moom. waaw <laughs> ko ma reliquat mujj bi après. mujj bi bu mujj bi waaw loolu laay loolu laay la jënd <laughs> aussi mooy dix-septième. waaw waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu képp ku fi ah. Pape euh, xaaral après parce que 17 personnes bari mais première question première question maa wax Luc euh, Nicolas maa ngi koy euh, bëgg a laaj. tey jii dama man après lamb moo tax may wax waxuma avant parce que ba ñuy xool am ñoo xam liggéey wàcc te ñoom nekkul si lamb lamb toj ñoom di agressé di nangu lu mu est-ce que il est temps jógul nga sol sa dem ba si ministre de l'intérieur waxtaan ak moom pour kaaraange li nga mooy aar askan bi parce que loolu da nga ko yàgg jooy tey gars yi wàcc làmb toj nga gis gars yi agressé ñu bëree bëri bëri bëri te mbir ñu ci mën ndax duñu nga xamul ay supporter lañu xamul ay amateur nga xamul ay ñan ñoo te loolu lu jar a lu jar a saisir la si ministre de l'intérieur ay sant ñu waaw beneen bis donc Ama Baldé laa koy posé Ama ba ngay bëri Papa Sow ñëpp sa jël nga coup boo xamante ne ci am si façon boo amoon kàttan peut-être doo ci génn mais est-ce que te gis nañ aussi am na seen Modou Lo am doon na coup jogolaay mais lu ko bëree moo baaxul yaa ngi sóoraale coup Modou Lo ndax Modou Lo coup yëpp kaw bàyyi nga xel est yaa ngi koy sóoraale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 ëllëg. di xaar xeex bu si wut bu atténué sa diggante ak ki nga xamante ne mooy combat ndax gis nañu ne sa diggante guy bi ak nees xeex bu yàgg ak combat bu diir mën nañu ne moo la ñàkk a yàq tey combat bi lan lañ ci mën a xaar ak tamit combat royal bi ne combat capital bi ñu doon ci xaar Eumeu Sène Boy Niang Sokh waa Pikine ñëpp doole la ngeen contact ndax tey jii 100 pour cent bi nga war a feeñ ci combat bi merci beaucoup. vas-y Ama réponds d'abord. waaw. làmb ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu nekk si lu ñu war a nekk comprendre na di si liggéey képp ku ñu si war a waa Pikine li si war a liggéey yëpp ñooñu si liggéey wax dëgg yàlla. xëy na tamit ànd na munoo def lépp xam nga tey boo defee fees ñu ne warul fees boo defee ñu war a def képp koo xam ne mooy mooy muy mbëru Pikine dëgg Pikine wax dëgg yàlla nekkul Ama Baldé de Fallaye Baldé moo tax na yéene parce que sama papa def na lu nekk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 c'est un. waaw Médoune Improd tamit en direct. waaw attention yow nekkoo direct waaw. ñu ngi nuyu ñu fi nekk di wax ni. ñor na leen. ak ñi seetaan direct wax ni benn question pour ñu dama koy yóbbante li tax ma koy yóbbante dañ ne sos ak vingt tolloowuñu arène nationale ku ne gis na si ta façon ni mbooloo mi mel Ama Baldé dëkk ci guddi stade suñuy frère ak suñu nijaay ñooy ne ci biti bu coow amee ñaan ñu ko blessé bu amee ñooy perte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 jox ma micro ba la rek teel teel teel. non non jëlal sa ah ba léegi. ay ñu dégloo rek. mën na wax rek bu ndaw. Modou Anta. waaw turam a ngi dama caa yeggagul rek fàttewuma kenn. jërëjëf ma ne question bi am na solo. li nga wax dëgg la. parce que nit bu amee constat. da ngay laajte pour ñu leeralal la.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 di woo sama xarit yi fi nekk su mel ni Tafa Ba maa ngi koy woo bu baax a baax xam nga di woo docteur Ba docteur Ba maa ngi koy woo bu baax a baax. sama maa ngi sant sama mafia bu baax a baax. Ah, di gërëm sama rakk Badou Ala Ndiaye maa sant bu baax a baax ku su mel ni Amath Diop xam na xam na ku su mel ni Ndiaw maa ngi koy woo bu baax a baax Ndiaw di ko ñaanal jàmm ceebu maa ngi koy ñaanal yàlla ko suñu xam na di woo sama mafia bi yëpp maa leen ñaanal yàlla leen suñu borom kàttan ñoom ñëpp ñëpp dafa mel ne Ama Baldé li lool ah. ci Ama Baldé. bu waxtaan mën naa am ba jël làmb yóbbu ko feneen. yaakaar tontu mu jeex. Euh, sama waa ji mu wax dëgg la Modou Anta ñu ngi lay gërëm bu baax a baax li nga wax nii du yaa ko njëkk wax de man dama toog ñu woo ma CNG réunion Moustapha Guèye. ak man ñu ànd dem foofu. ni nga ko waxee bu dee arène nationale bi wóor ba wóor mooy billet bi nga yomb dix mille francs moom amul sax bu dee arène la moom bii bi gën a yomb dix mille la moom loolu moom acca mhm. non koy xool ci coordination su mbëri yi rek xam nga coordination su mbëri yi la la ay boo xoolee poche sax ñu ngi wàcc ah yaa ngi dégg waaye ñii ñii du ñu am poche. non non ñii du ñu am poche ñii day fees dell. avant tontul après nga ànd ak sa gars yi tranquillement waaw waaw dañuy sant yàlla rek. xam nga xam nga ku su mel ne ku su mel ne manager Modou Lo xam nga kooku xam nga xam nga xam nga ñoom dugguñu si làmb ba xam lu si làmb ñoom réew loolu làmb rek moo leen tax a comprendre. est-ce que comprendre la sama sarax lan la. man sama sarax lan la. man sama man sama sarax lan la. waaw mooy combat man sama sarax lan la. waaw loolu la wax. bu yàgg. man sama sarax dama ne sama sarax bu may génnee man saraxu lan la. mooy bu gaaw xaw ma waaye sama sarax laa <laughs> wax. jërëjëf. waaw di sant di sant yàlla bu baax a baax xam na la woote ñu wuyu dafa metti maa ngi gërëm sama fans yëpp maa leen di woo coono sama fans yëpp xam na lu nekk ñu ngi koy si internet beeg yooyu yëpp maa ngi masoo sama coono bu baax a baax naa leen xam